ak mel daf bëgg bës la gën a niru ndax bëgg bës mooy nit koo xam ne euh, moom chaque deux mois yu ne dana attaque su ko defee gars yi émotionnellement ñu war di jóg di dal te xamuñ ne euh, canal officiel yi euh, wax ko ci nit day am foo xam ne nii bëgg bës mooy da ngay gas ci suuf ñu jëla yóbbu ca kaw ngay ngay gën a feeñ ngir sa ay sa ay stratégie mooy fi nga jëm parce que réew mi dafa difficile ba nga xam ne. ñii ab juddu moo leen yor ñii dañoo jàng ba ma am waaye amuñu liggéey ñii dañoo bëgg ay position tax na ba kenn ku nekk da yaa ngi xool foo foo fooy jaar ba siiw bokk na ci lii tax a gën a siiw nag mooy nga léegi dañoo démocratiser wax saa su la neexee nga jël seet ka gën a kawe nga song ko eh, bu ko defee daal di daal di ñëpp daal lay jógal bu defee nga doon koo xam ne nii maanaam. dañ lay bàyyi xel moom gis naa ne mooy mooy mooy plan moom sëñ bi jaañ léegi nag loolu dafa doon loo xam ne nii émotion da cee amut day jar tontu dafa jar dafa day jar xam rek ndax li ma la wax nii ba tey rek ci ay xam lay toog ak ay nitam ñoo xam ne nii seeni agenda kenn xamu ko daal di def lu rëy song waaw mu njëkk nee na nee na woon eh, tarixa yi eh, dee nañ amatuñ xaalis xam nga nit buy wax ci contradiction ngay njëkk a xool li muy wax nim nim mën a weddee boppam nga ne tarixa yi amatuñ xaalis daanaka léegi nangam nangam matagut trois mois nga génne tarixa yi dañoo dañuy am xaalis ndax dañuy balancement d'argent maanaam ñaar yooyu dañuy xaw a wutee tuuti ci ay addiyee lañ koy jaare ci ay ci ay euh, canal yu nekk bitim réew te loolu dafa yomb tontu lool fii ci réew mi ndax réew xaalis bi ñu yëkkati ci biir réew moom di ko joxante suñ biir loolu ah boo ko deful ni Europe di def nga xam da nga naan na lépp di jàll électroniquement mënoo ko contrôler contrôler lu dul dugg ci banque maanaam mënoo ne diw mënoo jox nit xaalis tubaab yi ëpp doole sax mënuñoo jékki-jékki ne eh, yow booy jënd nangam boo booy jël xaalis di ko jox diw eh, na nga ko déclaré maanaam mooy biirum réew laay bëgg a wax kon transaction interne yi. moom ñun suñ biir ñoo koy paasante muy addi yi nit ñi yëkkat di ko joxe loolu la ñuy wax euh, loolu moom mooy euh, dina mooy mooy mooy dynamique économie économie il faut xaalis bi circuler ci biir kon xaalis bi jóge ci biir lay wax ndax xam ne loolu état xam na ko ndax dugg na ba nopp ba masse monétaire bi xam na ko xaalis bi jóge ci réew lay wax day jox bi réew bitim réew lay wax moom lay waxe milliards ay milliards man nekkoon naa Europe boo dugalee benn xaalis boo ko dugal Sénégal boo ko jaaralee ci banque muy dix mille euros soo ñëwee fii CENTIF da koy bloqué ba nga indi justification loolu képp ku nekk bitim réew dix mille euros laa wax soo demee sa banque dañ naan la xaalis bi agsi na waaye CENTIF da ngay bind wax foo ko jëlee dix mille kon boo indee lu mag foo koy jëlee léegi li nga leen wax mooy man ci banque la jógee ñu daal di xool banque wala ma génn la fa mu jógee de mais yow mi ko indi fii waaye boo indee milliard na kon fu muy jaar ci banque milliards yooyu wax naan ma versé sëriñ bi fan lay jaar milliard euro mënoo ko foo yor Europe ga muy wax mënoo ko faa yor di ko circuler nu mu la neexee nan lañ koy defee dem verser ko ci banque am 20 pour cent nan nan koy defee da ko war a leeral maanaam Europe ku fa nekkul de xamu ko ñun ñu fa dëkk ñëpp xam nañ Europe mënoo jël xaalis ko verser ci xaalis noonu naan ba ma ko li nga man mooy plus de 1000 euros mënoo koo yónnee jaarale ko ci yeneen yeneen yeneen yeneen canal financier yi mooy ay Wave ak yooyu te 1000 euros boo ko jëlee 360000 euros moom nga mën a yónnee ci at mi mooy bis bu set samedi dimanche ci lay bokk nga dem yónnee la. trois cent soixante mooy presque deux cent et quelques millions léegi loolu boo ko defoon ba noppi danga am trois cent soixante personnes yu yu koy def par yu bóotiwul ndax moo ñu ne mille euros mille euros te yow ngay fayeeku ay trois mille euros par par ci at mi boo di jàmba dafa am loo xam ne maanaam naan ko fen nga sax dafa jàpp mooy da nga amul xam yooyu tuumaal nag ngir bëgg am daraja yomb na trop mais xaalis dafa doon lu naqaree gérer ci àdduna bi fi ñu toll nii ni ko tubaab bi gérer xaalisu interne bi it dafa bariwul bari goo xam ne ba nga naan milliard mën nañ ko def nangam milliards manees na ko ay milliards la ñuy jaarale fii nangam ay milliards li ñu war a xam mooy sëriñ si jëmam dañu amul xaalis fi ne loolu moo gën a yéem sëriñ dañoo am barke di kii nii da yor as dara benn onze millions jënde ko oto loolu sëriñ dong ko ñeme jënde ko oto di circulé nga yaakaar am nga xaalis fekk xolub cant gi nga xam ne ak wóolu adduna gi nga xam ne gëm nga ne day gën a baax rek moo la ci yóbbee mais boo demee Ndakaaru gone yay taxaw di saw ñoo ëpp xaalis foofu sëriñ si di soli jin da gis gone gu ndaw ëpp xaalis bu dee fii Touba commerçant yi ñoo yor xaalis dëkk bi commerçant yi ñoo yor xaalis bu bari mais li ñuy wax sëriñ fii boo jëloon ñetti sëriñ ngay mën a lim te ñi ñëpp ay baykat lañ ñoo fi mën a am xaalis bu ñuy wax te dañuy bay lu bari doon du alal joo xam ne eh, doon ak ak mbay moo xam ne nii moo leen di may alal te ay jàkkaar yooyu lañ koy def di ko tabax ñëpp gis kon sëriñ si mu naan dañoo am xaalis loolu ak complexe la complexe la mooy leen barke bii suñu taxaa mujjee wax barke dem mu ne moom lañ yor loolu mooy barke mooy xéewal bu bare bu barkelee day bari day mel ni daa bari fekk alal ju bari jëwam ngay gis maa ngi lay wax ni fii déclaration bërk démb am na ko bi ñuy déclaré am na soxna soo xam ne 40 milliards lañ fekk ci compte am 40 milliards benn jigéen soxna sax nga xam ne ñëpp xam nañ turam ba may bañ a tooñ waaye 40 milliards lañ jàpp ci compte bi ne moo ko moom 40 milliards yoonu murid yëpp di ko dajale fii mënuñ ko am hmm? sëñ bi ñu yaakaaroon ne moo ëpp xaalis ci Touba bi mu nelawee barki démb Ndiaye radiyallahu anhu sëñ ma bañ demee lañ fekk ci moom 2 milliards te dundam gépp liggéey lañ ko xamee 2 milliards ak i terrain terrain yëpp bi ñu ko calculé lépp matul 9 milliards lépp nag ah muy jàmbaar joo xam ne nii ku am ñeen fukki ak ñoom xàmmee ci liggéey nga ko xamee ak commerce ak bay ak euh, transport te ci man ci Touba la ci ñëpp xaalis 9 milliards goo xam ne nii barki dem mondial da nga dégg ñu naan la 90 milliards 9 94 euh, milliards yaa ngi koy dégg ci Dakar sëriñ si ñu si ñu fang ne dañoo yor xaalis loolu mooy problème bi ba complexe rek la. complexé complexé mooy li ko jur léegi nag nit ñi ñoo war a xàmmee yembar yi mel noonu nga xam ne bis bu set ñu seet fa mu gën a mette ñu taal ko ndax ñam bokkal tarixa daana leen saa duñ ko tontu mu jekki-jekki te bu ko daan defit day tagg murid yi mu jekki-jekki mos murid yi def benn mu murid yëpp waddandoo mu ne xaaral lii mën naa cee loolu laa ko yaakaare mën naa cee tàkkee kii nit la koo xam ne nii du ku ñuy euh, euh, maanaam jox paal ndax calcul wax ju dul dëgg xel mu neex man na ko am dëgg la nag Sénégal léegi nit ñi yëpp yeewu nag maanaam loo fi wax dinañ xool ba xam yan na maanaam déet waaye ñun daal projet yi gën a mag maanaam daanaka fukki at a ngi ci lañ nekk benn bi la ñuy doog a noppi muy muy muy muy muy muy muy muy masaalik beneen bi la ñuy doog lépp boo ko boolee matagul cent milliards te milliards ay milliards lay wax daanaka ñaar fukki at ak juróom yi ci lañ nekk ñun murid yi kon war naa xam ne himma la ak yitte ju kawe ak bëgg lu baax ak jël sa àll di ko jëmale mais Sénégal jëm mu amul xaalis bari na fii Nigéria koo xam boo jëloon lam mu am kenn nit mën naa ëpp yoonu murit yëpp li am Nigéria benn nit boo ko jëloon li yoonu murit ali ko dangote li yoonu murit yëpp ab maam ñii murit laax de waxuma la sax de murit ñëpp boo leen boolee amuñ lañ wax ne moom lañ amoon vingt milliards dollars xaw ma loolu loolu loolu loolu Sénégal sax est-ce am na ko Sénégal dëgg am na ko sax far ba tax mu naan xaalis maalullahi si aataakum xul man harrama zinatallahi lati axraja li ibaadihi xéew li ci àdduna bi nit ñi dañ koo yeyoo jullit ñi yeyoo ko jullit ñee ci gën a yey ku dul ñoom def ci lu baax lañ ci def sant ci xéewal ci waaye toog di siñ fang baaxul sàcc nga nangam loolu ku sa xol baaxul rek moo ko def nañ sant ci jël ci xéewal suñu borom yi mu wàcc ci ko suuf ñoo ci gën a néew la ñun africains yi rawatina bi amee quelque ay réew ñoo ci am ci golfe mais réew yee ci gën a jullit ñee ci a néewle tubaab yaa yor ay mille mille mille mille milliards ba nga xam ne xamatuñ fi koy denc nga taxaw ñun as feccet soo xam ne dund soo ñëwoon dëkk bii nga xam ne taraanga la ñuy dundee mooy taraanga yàlla mooy xol bu sedd